kon dafa mel ni suba li lii fans Wally kii yi wax Faramareen nee nañ dafa bëgg def benn coalition bu mag contre Wally Seck mi ngi ci suba te suba teel foofu dañoo gisaat Sidi Diop Sidi Diop ndaanaan boobu nga xam ne kenn du ko présenté moom it mu ne mi ngi ci Matar suba teel yow Pape si ngeen bokk label Ibra Naajo génn na fi di dal siidi Diop di dal staffu Sidi Diop ndax nee na ba mu demee fa Sorano du way staffu Sidi Diop ñoom ñoo coupé Euh, baafuli def te jaajëf sama gars bon man la Miss Shake depuis euh, Brooklyn New York tay dama ñew defal leen benn vidéo ci euh, Matar Soubatel ak Wally Seck ndax temps yi dañoo seetlu ne Matar Soubatel dafa njaxlaf lol lol lol lol jël ay artistes yu bees ku ñuy wax Bass nga xam ne kenn du ko présenter dafa génn fan yi mu ne ci Matar Subatel la nekk te ñëpp xam nañ ne Bass Thioung mook Wally Seck wax dëgg jege woon nañu lool lool lool Bass Thioung gis nañ ko penc ma lu bëri mu fay woy ñamax ñamax man foofu laa ko xamee ñamax ñamax yi dem ba am 5 millions de vues kon Wally Seck am na lu mu fa liggéey waaye bu ñu toogee ñu gis Bass dem ci Matar Subatel te suba Subatel ñëpp xam nañ ne moom Pape Diouf lañ ko xamé ndax mom mo yobbu Pape Diouf yobbu nako ko Bercy est-ce que yóbbu ko sax yenen ay Zénith ak yu ma xamul vous na sax ay Viviane ñoo ñep Matar Subatel mës na leen yobbu xam nga kon Vous buñu gissé ku mel ne euh, Bass vous di vous wax sax dafa na far dem na bokku ci ñom Pape Diouf dem na ci suba Subatel ngir ñëpp xam nañ ne Pape Diouf ak Wally Seck gars yi nañu waxante dëgg dañoo yàgg am li ñuy wax jongante dañoo yàgg am rivalité dañoo dem ba nga xam ne sax ñoom seen biir dafa xajamoon lool lool lool lool lool wax ju bëri génn na fi géeg nañ fa ay audio ñi naan Pape Diouf moo doon jëw Wally Seck ah Pape Diouf génn na nee na audio boobu du moom ñii ñii wax rakk Pape Diouf bu génn saaga fi loolu jot na fee am loolu yëpp pour wax ne daal diggante Pape Diouf ak ak Wally Seck ñëpp xam nañ ne Euh, wóolante wuñu ndax ay rival lañu gis nañ nag Balla Gaye daal di leen jubóole ci euh, corona bi kon jubóo boobu yàlla na ne dëggu yàlla na sax waaye daal ñu li ñuy wax rek mooy Bass Thioung mi ngi ci Subatel te Subatel yemul foofu dañoo gisaat Sidi Diop Sidi Diop ndaanaan boobu nga xam ne kenn du ko présenté moom it mu ne mi ngi ci Matar Subatel signé na Matar teel moom ak Pape Diouf ak. Euh, costume ñu ngi ci suba teel te li ma leen di wax lii yëpp man ba mu ko xamee yàggul ci ci ñetti fan laa ko xam tey ba yeewu xaw ma démb mooy xoolaat gis beneen artiste bu ñuy wax Ibro Naajo koo xam ne parcelle moom la dëkk moom it mu génn mu ne man maa ngi ci suba teel waaw nee na la boo bëggee boo bëggee lu baax dangay ngay teel a yeewu te suba teel mooy ñëpp xam nañu Soubatel il faut nga teel a yeewu moom noonu la ko waxee waaw léegi nag ay fans Wally Seck démb damaa génn benn vidéo ñoom nag ñu ne suba teel Wally Seck rek la bañ suba teel Wally Seck rek lay la bañ li muy def nii yëpp ah di jël ay Sidi Diop di jël ay euh, Bachoum di jël ay Ibro Nadio te xam naa ne am na ñeneen ndax man ñii rek laa jot a xam ci ñetti fan ñii rek laa jot a xam kon dafa mel ni suba teel li fans Wally Seck yi wax faramare ni nee nañ dafa bëgg def benn coalition bu mag contre Wally Seck man nag du ma ko waxee noonu du ma ko waxee noonu bien que ñëpp xam nañ ne ah nañu waxante dëgg Sidi Diop moom it maa ngi wax Pape Diouf waaye Sidi Diop moo waa Waly Seck dañ fi am problème bu rëy nañu waxante dëgg waaw ndax Sidi siidi fii la Waly Seck invité ko Vogue di ko way nan ko yaay borom géejawaay pourquoi pas Ndakaaru gis benn waayam ne ko mayel ma ko xaalis waa ji di baatare Sidi ah faramaare ni bëggoon Sidi waaye après Sidi daf fi amoon problème yu bëri ak Waly Seck ndax manager Sidi bu ñuy wax Baye génnoon na fi mu ne ñoom dañu amoon contrat pour tëgg euh, penc ma euh, mooy bi Wally Seck war a def Genève ba Genève ba Sidi Diop moo waroon dem tëgg penc ba waaye au dernier moment Thione Seck daf leen wax non non bu leen fa tëgg ñoom nag dañu yaakaar ne xëy na Wally Seck moo jaar ci suuf nekk bu ñu tëgg sa penc ma parce que penc ma Wally Seck ko moom. xam nga Sénégal dañoo bëgg gëm ay affaire mystique xëy na yaakaar nañ ne am na sax ñu doon wax ne Sidi Diop bu fa demoon dina am lu mu fa ay saafara yu mu fa siw wala lu am lu mu fa def loo xam ne day yàq carrière Wally Seck loolu ñoom Baye Sall génn na di ko naqarlu Baye Sall génnaat ne Esplanade dañu dañ fa waroon tëgg Sidi Diop war a def première partie Wally Seck deuxième partie Wally Seck ay Sidi nekk ci scène bi ah faramareen yi ñëw staff waa Wally Seck ne day wàcc par force ndax Wally ñëw na loolu tamit ñoom naqarlu woon nañ ko moo tax xëy na nag Sidi daal di génn dem géejawaay euh, defe naa ravin la woon ci benn boîte mu way mu ne Wally Seck ah, non demal sa yoon nga bayima ma dem sama yoon xana dama lay tere nelaw ya mo waxone yay borom way pourquoi pas Dakar xam nga lolou ñep xam nañ ne Wally Seck la la doon wal lolou mom erreur bu mag la Sidi job warul lon def après nak gis nañ Sidi job di jema rafetat di rafetal dugg ci tek dag daf may dal wal sek bi di di wax mais lolou c'était trop tard ndax amna yo xamne bal bi mom bu xasse tak mom c'est fini kon nak kay Sidi bi ñu ko gisee mu dem rejoindre manam fekki Pape Diouf fekki suba teel te Pape Diouf ak Wally Seck am problème Sidi Diop ak Wally Seck am problème kon Faramareen dañ naan ah ñii kat dañoo bëgg def benn mbootaay benn coalition ngir xeex Wally Seck waaye mënuñu Wally Seck dara loolu la sama yenn euh, fans yi sama yenn abonnés yi loolu lañ ma bindal démb yematuñu fa yematuñu fa suba teel daal di jëm jëli booy Ibro Naajo ñëpp xam nañ ne lii bu bu euh, concurrence bu metti lan dara doon ci Wally Seck ndax fi mu nekk ni nañu waxante dëgg gars yi dama leen bëgg a laaj corona bi kan la gën a sonal corona bi est-ce que ñi fi nekkoon téye musique bi seen loxo ku mel ne Wally Seck téye bi ci loxo moom la gën a sonal wala ku mel ne Pape Diouf mi nga xam ne dafa jógee euh, Prince Art di waaj a tàkk corona bi ñëw wala ñu mel ne ay Ibra Nadio wala ñu mel ne Bass Thioung mi nga xam ne mu ngi doon naaw corona bi ñëw daal di leen freiné corona bi kan la gën a sonal man boole ma laajee dama dama noonu waali sekk la gën a sonnal ndax Wally sekk perte na ci ay millions def naa génn na fi sax mu ne lu mat 300 millions perte na ko ci ndax contrat yu bëri daf koy annulé ndeysaan ku doon tëgg weekend chaque chaque chaque semaine ngay tëgg euh, bara baramundi la xaw ma xaw ma vogue nga daan tëgg boo paree nga dem tëgg penc ma dafal taxañ ay millions ah. ak ak date yi mu amoon yëpp Sénégal ak ak ak à l'étranger yooyu yëpp daal di tëju ah soirée de gala yu war a sekk doon tëgg loolu yëpp tëj kon mun nañ ne kii bi ñan la ñi fi nekkoon doon liggéey ñooñu la gën a sonna Wally Seck Youssou Ndour euh, nu mu tuddati euh, ak ñi doon takk ñu mel ni ay dund gis ñu takkoon nañu ñu mel ne euh, booy bi booy bi mu leen wax léegi Bass Thioung booy HLM waaw nga xam ne mooy yaakaaru HLM man HLM laa dëkk te boy bi ñun dañu bëgg mu réussir ndax HLM dafa war am dafa am talent mais ñi nga xamne dañ doon naaw ñooñu la yakal ñeneen ñi yakal na leen ndax ñi nga xamne ne dañ daan moccaat bi am ay 10000 fi 20000 fi 30000 moy trente yu ndaw yi ñoon tamit seen affaire dafa dafa dafa métti moo tax ñu gisoon fi temps yi le musiciens yi ño xamne sax bokkon nañ ci taf staff Wally fet ay ñoom mbay si xam nga ñooñu génn di casse di wax dañuy grève geewali ndax mënu amatu ñu dara ndax yow bu ñu la daan fay 100 pour cent Wally Seck moom ci boppam wax na ko 70 pour cent rek la mën a fay artiste am xam nga kon ñooñu ñooñu tamit sonnoon nañu musiciens yu ndaw yi sonn nañu mais nag ñi gën a sonn mooy Wally Seck ndax Wally Seck dafa am dafa am staff ñoo ñëpp mu leen di fay ñoo ñëpp mu leen di fay te xaalis bi mu daan am amatu ko ba li ci doy waar mooy gis nga toog bi ñuy toog nii corona dafa am ay boo yu bees yu fël gis ngeen fi benn booy bu ñu wax Dimxa defe naa Dimxa euh, Pasi la tudd xaw ma ak ak benn booy bu ñuy wax Cheikh Cheikh xaw ma ñuy Cheikh Ndiaye la tudd xaw ma dëkk euh, euh, nu mu tuddati fële Louga mais gis nga booyoo ñu ngi def buzz ñu ngi def buzz c'est vrai que dafa mel ne dañuy théâtre dañuy def comédie mais booy xaadim booy baat bu neex la la la am gis naa ko léegi démb rek mu dem Seneweb ndeysaan woy fa benn woy waal sekk bu neex mais booy bi ni mu woyee woy bi da ngay daan kii booy bi ku ko jàppale dina dem kon dina am ay talent yu bees yuy génn bu continent bi corona bi continue ndax bi jeexagul jeexagul Sénégal loolu mooy problème bi léegi nag est-ce que mataar Matar teel dafa ñëw pour xeex Wally Seck wala dafa ñëw pour liggéey man boo la ma laajee dama naan Matar Soubatel dafa ñëw pour liggéey Wally Seck tax koo jug dafa ñëw pour liggéey sa barka nag Wally mooy number one man mii gën a naa benn way Wally number one Wally mooy number one Sénégal loolu kenn du ko wedd Youssou Ndour moom boole wuñ ko mais Wally mooy number one ñii nag dañoo bëgg ñëw pour wan Wally ne doo number one Pape Diouf Pape Diouf ba muy jógee euh, Prince Art commencé génne génne bari Dakar bi xam nga commencé di def ndànk bëgg dem def arena ñu ne ko doo fi arena bi ne doo fi doo fi doo moom tam affaire ma xaw na yàqu foofu Pape Diouf affaire ma xaw na taxaw ndax moom it dafa war a fay ay musiciens yéen a ngi may dégg waaw ku mel Sidi Diop am na chance tëgg premier janvier mais foofu am na fa xaw ma ñaata millions la fa am 6 millions la fa am xaw ma Baye Sall génnoonoo di ko wax te da 6 millions fay ñu ko woon mais moom jot fa am tuuti matat mais boo gisee Sidi Diop daal di ci matat Subatel corona bi moo tax waaw bu duloon corona ñoo ñep duñu dem ci Subatel bu duloon corona euh, euh Thioung du dem ci Subatel ndax ay affaire mi ngi doon baax nekkoon indépendant mais fi mu nekk ni comme corona dafa téye lépp il faut que ñu am ku mel ne bas euh, euh, subateel nga xam ne dina leen mën na leen dajale ñoom ñëpp yóbbuleen leen Bercy wala mu yóbbu leen euh, Zénith nañu waxante dëgg bas cu Subatel bu ne eh Pape Diouf ngi fi Sidi Diop mi ngi fi bas cu ngi fi booy Ibra ak ñeneen xam naa dina am ay jigéen sax yu muy jël ñooñ kat weer bu nekk mën na tëggal ñaar grand théâtre ba pare yóbbu leen ñun ñëpp France bu boobaa diaspora Sénégal bi ñëpp dinañ génn noonu la ñu mën a xeex xeexee Wally Seck noonu la ñu mën

loolu lay wax parce que moom toogoon na fi mu ne géejawaay dañ kaa bëgg moom mooy chouchou géejawaay waxewu ko noonu nag mais ni mu waxee moom moom moom mooy yor géejawaay di wax boppam naan nongoloo fi moom fi quartier bi mu dëkk dafa mel ni sax kër gi mu dëkk foofu la dëkk la dëkkoon wala quartier bi mu dëkkoon di wax daal di tëkkale boppam ak nongoloo te moom dafa gu fi dara Sidy Diop dafa gu fi lu nongoloo def Sidy Diop du ko mës a mën def loolu moom dafa leer am na talent nag am na talent waaye dafa bëri problème dafa bëri ay ennemis ndax yow nga nekk euh, ci banlieue bi ne yow yaay représenté yaay porte drapeau banlieue waaw dafa mel ni loolu la waxoon maay porte drapeau banlieue te Pape Diouf nekk fi ah léegi yow yow Pape Diouf ngeen bokk label Ibra Naajo génn na fi di dal Sidi Diop di dal staffu Sidi Diop ndax nee na ba mu demee fu Sorano di way staffu Sidi Diop ñoom ñoo coupé euh, baafali muy way ba ci yàgg ñu coupé baafali moom nee na looloo ko gën a naqare te Ibra Naajo ngi nii moom ak euh, Sidi ñoo bokk label. est-ce que gis ngeen fu may waxee kon ñooñu ñëpp nga boole dina am ay af pour gérer leen Matar Subatel du yomb du yomb dara dara dara ndax Sénégal dañoo gëm ay affaire sëriñtu dañu gëm ay affaire rivalité. bon léegi lan laa bëggoon wax pour pour pour terminer pour terminer daal mooy mooy Wally sekk nag moom erreur bu mu def xëy na mooy mooy dafa amul label boppam boo xam ne dafa am tiim Faramareen ndax kat Bass ba muy ànd ak Wally Seck di dem ci penc ba di def ñamax ñamaxe ak yooyu Bass Thioung bu fekkoon Wally daf la ko eh Bass yow doo dem kaay ma téye la fii comme comme Wally Seck nu mu def seex Niane ndax Wally dafa gis Cheikh Niane yii kii du ko bàyyi. Wally xëy na tamit noonu la waroon def mu am ay artistes boppam xool leen dib du mu dib dund gis du mu ngi nii créé euh, moo signé Samba Peuzzi ak yeneen i booy tey Samba ngi nii di naaw di di ah Wally Seck dafa am ay artistes yoo xam ne moom moo leen jël mënoon na jël euh, euh, nu mu tuddati Bass Thioung mais nag bu fekkee ne defuloo ko Bass Thioung tamit bu gisee feneen mais dafay dem léegi bu fa demee ñu ne dafa bañ Wally Seck mais xëy na du demewul euh, bañul Wally Seck mais xëy na Wally Seck moom moo war a am labelu boppam comme ñoom 50 Cent nu ñu amee ji unit di am ay jigéen yu mel ne Olivia 50 euh, Cent wax na fii la génn dafa am xale bu tuddoon Olivia mooy daan génn ci clipam yi rek nee na def na 2 milliards def na un milliard ci moom 2 millions de dollars xam nga mais xale boobu lan la ko indil ñaata la ko indil xam nga euh, Puff Daddy ñaata ñaata nit la produire ah même Jay Z jigen yi ngeen gis fi yep ñuy naw ah fan yi am ben way bu ngeen di deg tan savage am savage xam nga et cetera et cetera way kan moko way sax ah, xalé bob nu tuddu ah, Megan the Stallion mais kooku artiste Jay Z la mais loolu wal sax dafa war am ay artiste boppam mais nak xam nga ma am sa artiste yomul ndax mën nga jël nit mu dem ba ci biir ba daal di la dépassé loolu mooy problème da ngay xolal Kanye West artiste ki la won Jay-Z la woon tay kané ngi ni mo ëpp xam mo ëpp Jay-Z xaliss ndax ndax ay milliardaire la artiste yu bari nak lolu tax bëgguñu def bëgguñu bëgguñu def dañuy yenn yi ndax da ngay xol euh euh nu num fi jëlé won om um, Omzo Canabasse de ko yo yaay sama artiste ya sama ya, lieutenant na effacé wu way Omzo dem ba am doole daal di daal di fa bàyyi Canabasse dem ci Kayz xeyna walis ak lolu tax xeyna bëggul bëggul jël ay artiste ndax dafa am lu ñuy wax drama day am day am ay problème ci biir te artistes yooyu yaa leen di fay ndax boo signé nit di nga ko bëreet xanaa di ko jox dara ah ñoom ñoom Sidi Diop ak ak ak ak kii nu mu te Bastium ba ñuy dem ci teel Bastium dalay leer na ba mu signé rek signature contrat bi rek xëy na fay nañ ko ci benn 5 millions wala benn 10 millions xaw ma xam nga Sidi Diop tam xëy na am na lu ko ci fay ba pare promettre la ay date affaire yi noonu lay demee mais est-ce que Wally Seck xëy na Wally Seck moom moom buggul def loolu mais en tout cas bu yow mu def attention Wally Seck bu yóbbu mu def attention xam ne coalition suba teel egsi na te il faut que mu mu jóg ci boppam bu jógul ci boppam euh, ah gars yi gars yi duñ ko seetaan te dina gis nga il faut toujours se réinventer maanaam da nga war a luxus sa bopp Wally Seck nag li mu am moo jafe dafa am benn machine macha allah machine bu huilé am équipe bu huilé waaye nag corona bi dañu problème bi mooy kenn xamul kañ lay jeex número uno.